def nañu lu dul benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon ay conférence de presse def nañu ay point de presse fu nekk on avait écrit des lettres bind nañu ay bataaxal jébbal ko ki nga xamante ne mooy suñu ministre Cheikh Omar Anne bobu ba léegi ñi ngi artu bobu ba léegi ñi ngi exposé suñu problème pour que autorité yi mëna jël en considération suñuy revendication légitime wayé nak amul ben saafara amul kenn ci ñom ko xamante ne nañu SMS pour wax ñu pour wax ñu que ni jot nañu seen bataxal motax nak comme tay tey ñoom dañoo préférer rester ci seen coin bañ ñoo déglu bañ ñoo falé ci suñuy jafé jafé tay ñu ñëw ne dañuy dem ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation pour exiger tout simplement les autorités de cette de ce ministère à ce que nous menons dans notre avenir parce qu'il s'agit de, de l'avenir de plus de 60 et quelques mille étudiants. En tout cas, ce qui est notre plan d'action, c'est que nous sommes venus le ministère de la forcer pour Dougou. Nous exiger à ce que le ministre en personne nous parle de notre carrière, de notre avenir. Si nous avons eu le temps, nous allons préparer nous allons nous faire des choses. nous avons eu pare nañ pour teg loxo ñi nga xamante ni ay étudiants lañ yuy sàkk pour jàngi yuy sàkk pour am ay meilleures conditions pour seen wàllum avenir ñu teg leen loxo donc nañ ko def waaye tamit su fekkee teguñu ñu loxo ñun suñu jógee ci plan d'action bi dinañ gën a intensifier combat bi ba ñu ñu ba wàcc ci tali bi mbeddu Ndakaaru yëpp former des groupe à dix à vingt occuper fi nga xamante ne mooy mbeddu Ndakaaru yëpp fu nit war a jaar boole ko ko